أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi sunu xutba tey mooy nasaa'ih li mustaxdimi facebook suñu xutba tey mooy ay ndénkaane ak ay laaya biir yu ñuy laaya biir suñu bopp di ko dénk mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy dugg Facebook xam ngeen ne tey internet àdduna la ñépp ñoo ko aajowoo mag ñeeg ndaw ñi góor ñeeg jigéen ñi ñi xam ak ñi xamul li ëpp ci doomu aadama yi tey ci kaw suuf ku nekk am nga benn page benn fenêtre Facebook kon dana laaj comme dafa nekk paaka ñaari boor paaka boo xam ne ñaari boor yépp a ñaw war nañoo dénk jullit bi ba mu xam nu mu fay duggee ak lu mu fa war a def ak su amee page page am lan la ci war a bind lan la ci war a feeñal lan lañ ci war a def mu nekk fukki tomb yoo xamante ne bu ko ab jullit saxalee ci boppam def ko taxawaayam ci Facebook boroomam du ko mere mbokk jullit yi ñun ñëpp nañu xam ne lépp lu ñuy génne ci sunu làmbiñ yi wala muy bàyyeekoo ci sunu loxo yi ëllëg lu ñu yàlla tabaraka wa taala di laaj la yowm alqiyama inna alsama walbasar walfuaad lii yàlla subhanahu wa taala moo ñu lii lépp responsabilité ci yow mi nga xam ne yow lañ ko may danañ la ko laaj yowm alqiyamati maadaama dañ ñuy laaj li ñuy bind di ñu waa di ñu laaj li ñuy def di ñu laaj sunuy jëf kon mbokk yi dana jaadu ñun ñi nga xam ne tey nu ngi dugg internet am page Facebook ñu xam lan mooy sunu taxawaay ci loolu tomb bi ci njëkk mooy yow mi di dugg Facebook ahyul xaq bi zikrihi nun nii dugg Facebook yéen ñii dugg Facebook ngalawaay dundal leen fa dëgg ci di ko bind wala di ko wax wala di ko feeñal dundal leen fa dëgg ne leen fa dëgg yóbbu luy génn ci seen gémmiñ na nekk dëgg lu ngeen di bind ci seen loxo na nekk dëgg lépp lu ngeen fa war a feeñal na nekk dëgg ahyul xaqa bi zikrihi nekk leen jàmbaaru dëgg ci feeñal ko ci xeex leen fa ak caaxaan ak réer ngeen samp fa dëgg kon ki am page Facebook li mu war a njëkk a xam mooy sama page bii de dëgg laa ci war a def waruma cee def neen waruma cee def caaxaan dëgg moom moo fi war a indi mais bu ñu xoolee tey danañ gis ne jumtukaay la boo xam ne li tas mbon ci àdduna ci la bokk tey léeg-léeg nga gis fa kilifa gu ne lëng ak yaramu neen dugal fa fotom léeg-léeg nga gis fa jigéen ju ne dum léeg-léeg nga gis ku bind loo xam ne su si sa bët nee taf rek di nga toog journée bi doon normal ñun jullit ñi nag nañu wuute ak loolu ñun nanu fa dëgg yóbbu ñaareel bi mooy amitul baatil bi tarkihi amitu al baatila bi tarkihi mbokk yi nanu fa rey caaxaan ku fa dëgg fekk fa caaxaan dindi ko bindal waxal dajjil fexeel ba caaxaan bi nga fa fekk nga rey ko fexeel ba am ay lay yu leer foo sukkandiku ci dëggal dëgg ak dindi caaxaan te mooy rey ko ñaari tomb yi yi njëkk ci li war a ab jullit bu am page Facebook ñetteel mooy tajannabu assuura almuharrama ngal la waay yow mi dugg Facebook mooy tandikul yow sa page sa photo bi nga fay publier sa photo bi nga fay wone mooy tul mu nekk bu araam mooytu faa xoolit photo bu araam mooytu faa xoolit vidéo bu araam mooytu faa jàngit lu araam mooytu faa bind lu araam tajannabu assuura almuharrama mooy tandiku leen yéen ñi dugg Facebook posteer yu araam yi fa nekk am na ci doomu aadama yoo xam ne ay seytaane lañ wala seytaane sax a leen tane naka la ab jullit nekk góor wala nekk jigéen dugal ci facebook bi loo xam ne ku ko ku ci ne jàkk ne subhanallah naka la ko ab jullit di defee xalaa xamootoo li ngay def ci jamono yi nga toll di ko def di nga ko paase benn waay dafa dugal ci facebook bi ay poster yu araam photoom moom ci boppam yépp araam ak ay vidéo mu dund ay fan rek sukraatul mawtu dikkal ko benn xaritam xamoon na ne moom ay paasam facebook lépp lu ci nekk lu araam la diggante góor ak jigéen kese la lépp ay film porno la bi ko xarit bi seetee fekk mu ngi ci sukraatul mawt mu ngi ci lalu dee mu bëgg a waxtaan ak moom bëgg xam code yi muy dugale photo yi pour bu demee supprimer yépp waa ji daal di faatu mënul xam lan mooy code bi dugg lu nekk mu jéem ko def woo ay technicien pour ñu dimbali ko pour nañu ubbi page bi ba xam waa ji lan moo doon kotam pour mu mun a ubbi page bi kenn mun ko xam ba léegi film yu araam yooyu waa jooju dee na ma nga àllaaxira lu araam loolu moom moo nekk foofu moo tax loo fay def def fa jàmm loo fay bind bindal lu baax photo boo fay def nekk bu bu dagan mooy tandikul dugg Facebook di fa def lu araam rawatina nag nga bàyyi fa sa jëmm ju araam léeg-léeg nga gis jigéen buy jaayu ci Facebook bi sol lu bon sol lu araam def boppam ci Facebook bu doon sax dafa def lu dagan sax dañ ko ko tere parce que jigéen du publier boppam ci mbedd jigéen du publier boppam ci marché waxuma la ak nag ci àdduna te xam ngeen ne Facebook àdduna la kon tajannabu assuura al muharrama ñeenteel mooy ihzaru an naktata allati mooy tandiku leen flèche boo xam ne tastahzi'u bi diin wal asxaas wa shu'ub wal qabail mooy tandiku leen wax joo xam ne wala bind boo xam ne wala photo boo xam ne dafay xas diine léeg-léeg nga gis ku dugg daa def benn caricature ci benn jëmm ci jëmmu islaam wala benn melokaan ci islaam wala moo loo xam ne diine moo ko nangu sayduna muhammad moo ko sunnaal nga gis ni kenn yenn saa yi benn waay dugg def dessin wala photo wala bind di xas loolu mbokk jullit yi nañu xam ne xas lenn lu bokk ci diine dafay murtat loo nit dafay génn loo nit ci islaam moo tax ab jullit dañ lay tere sax ci booy jàng arab ñu lay jàngal tasrif nu ñuy sarfoo fi'lu yi pour nga mën a wax suñ la joxoon masjid baatu jàkka ñu ne la def ko ñaar da nga naan masjidaani wala nga ni masjidayni suñ la nee def ko groupe nga ni masajid suñ la nee tasxir araam na mooy tuutil ko tasxir baatu jàkka ci arab dafa araam ndax kenn du wax as njàkka fa araam yàlla lu moom du tuuti ndax yàlla tuutiwul kon luñ ko moom loo loolu du tuuti moo tax dañ lay tere ngay tasxir lépp lu aju ci diine kaamil bi bu ñu la waxoon tasxiir ko dafa araam jàkka bu ñu la nee tasxiir ko dafa araam lépp lu aju ci diine baat bi bu ñu la ko joxee ne la tuutil ko yëgal ne lu araam la kon nag mbokk yi nañu mooy tandiku dugg ci facebook bi fekk fa ay seytaan wala ay naafiq wala ñoo xam ne diine ñoru leen ñuy xas diine ci lenn nga leen di jàppale wal asxaas wala ñuy xas ay nit nitu diine nga leen di jàppale wa shuub wala ñuy xas ay peuple nga leen di jàppale wal qabail wala ñuy xas ay xeet wala ñuy xas ay mbooloo yoo xam ne ci islaam lañ bokk nga leen di jàppale nañu moytandiku loolu na ngeen yëg ne man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum ku bëril mbooloo ay nit yaa ngi ñooma yem képp koo xam ne da ngaa fekk kuy xas diine nga jàppale ko wala nga taxaw ci wetam wala nga dimbali ko ci li muy def yonent bi nee na yaa ngi ñooñu yéen a yem yàlla sax dafa ne yow yaa ngi ñooñu yéen a yem kon loolu mooy ñeenteelu tomb juróomeel mooy laa tastaxilu bil jidaal fi gayri mufid nekk facebook rek di werante ab julit du werante yonent bi alayhi salaatu wasalaam daawul assuré nit aljanna daawul wax ku def nangam dinaa la dugal aljanna man yonent waaye ñetti place yi yonent dafay assuré nit aljanna ñetti place yi may bugg a wax bi ci njëkk mooy ku bàyyi werante donte ne yaa nekk ci dëgg yonent bi nee na assureel naa la aljanna ci buntu aljanna bu ñuy dugg aljanna ci buntu bi yonent bi nee na yow mi bàyyi werante même bi nga nekkee ci dëgg assureel naa la aljanna ci buntu bi mu ne assureel naa aljanna ci digg aljanna assureel naa aljanna ci kaw ci kaw kaw aljanna ñeneen ñaar ñi assureel naa leen fi aljanna waaye ki mu njëkk a wax mooy ku bàyyi werante même bi nga nekkee ci dëgg yonent bi nee na boo bàyyee werante man assureel naa la aljanna waaw kon yow mi dugg Facebook bul fa werante soo fa fekkee caaxaan bindal ci kawam wala waxal ci kawam waaye bul fa nekk di werante même boo nekkee ci dëgg bindal li ngay bind nga pare ci waxal li ngay wax nga pare ci nga bàyyi leen waaye yendu suba ba ngoon ci Facebook di werante yenn saa yi nga gis koo xam ne guddi gi yëpp nelawul loolu tey bokk na ci li mu jëlal jullit yi ay temps bokk na ci li mu tardeel jeunesse bi am na ñu baree bari ci seeni examen bokk na ci li tax ñu échec mooy ñàkk a jàng ndax Facebook ay élèves yoo xam ne dañuy def examen bac BFEM entrée en sixième wala COP ba ci kaw a kaw mais bokk na ci li leen échec loo mooy nekk ci Facebook bi guddeeg bëccëg am na ñoo xam ne saa yoo connecté gis leen ci ligne bi ab jullit dafa war a xam ne temps bi dafa cher waxtu bi dafa cher yàlla dafay laaj waxtu bi yowmal qiyaam kon la tastaxilu bil jidaal fi gayril mufid bu kenn nekk ci werante loo xam ne amul bopp amul genn amul benn njëriñ nga nekk ci ku dégg bëccëg sa temps bi nga passé ko ci ab jullit du def loolu juróom benneelu tomb laa takunu masdaran li isaa li isaat wala naaqilina laha kenn ci ñun bu mu nekk balluwaay bu mu nekk benn bunt benn fenêtre boo xam ne da nga koy ubbi ci facebook pour tasaare mbon waaw bul nekk benn bunt boo xam ne yow ku bëgg a def lu bon ci yow la ñuy jaar nga publier ko nga feeñal ko bind ko wala wax ko waaye tamit mbokk yi comme dañ laa ne bul nekk benn bunt pour tasaare mbon pour def ko kon tam bu ko toxal boo fa fekkee mbon bàyyi ko bul ko télécharger yenn saa yi nga gis ko dugg Facebook gis fa benn mbon indi tasaare ko publier ko ñëpp ne xool leen du du ko publier sax ci page am rek pour ameem yi xaritam yi jot ci waaye bal daf koy télécharger ci portable am ñi nga xam ne mënuñu dem Facebook sax mu envoyé leen ko par bultuf yàlla dafa wax ci alquran ñi nga xam ne dañoo bëgg mbon tasaaroo ñi bëgg rek la wax danaa leen mbugal àdduna mbugal leen àllaaxira kon ñi ko def mu tasaaroo fu ñu jëm inna allazina yuhibbuna an tasi al fahisha fi allazina amanu ñi nga xam ne dañoo bëgg mbon tasaaroo ci ñi gëm yàlla yàlla ne naa leen mbugal aduna ak alaaxira kon ki ko def mu tasaaroo foo jëm bu fekkee ki ko bëgg rek moo ko xalaat daf ko bëgg mais defagu ko yàlla ne dinaa ko mbugal kon ki ko tasaare fu mu jëm kon mbokk jullit yi juróom-ñaareelu tomb mooy juróom benneelu tomb mooy bu ñu tasaare ak mbon buñ ko fa dugal buñ ko tasaare waaye buñ ko toxalit pour jox ko ñeneen juróom ñaareel taakkadu min sixati alxadis wax joo fa fekk balaa nga koy jël balaa nga koy enregistré balaa nga koy toxal balaa nga koy tasaare vérifier ndax xabaar bi wér na vérifier ko ndax léeg-léeg nit day jël benn fen rek daal ne ko caf dugal su ko defee nit ñi daal di koy jël commencé di ko tasaare fekk xamuñu ne li ay fen la te ku tasaare fen fenkat nga fen ku ko tasaare rek yow ci nga bokk loolu tax boroom xam-xam yi di tere fen ndax fenkat sàcc la sàcckat sa alal lay jël amma fenkat sa xel lay jël dañu ne alkazaabu lis sàcc fenkat sàcc la lan lay sàcc sa xel kon mbokk yi kenn ci ñun su duggee facebook balaa ngay tasaare benn waxtaan wala benn qisas benn nettali wala benn xabaar te akkadu min sixati vérifier laajteel xamal kii di publier kan la kii xoolal ay ameem xoolal nationalité am xoolal fu mu dëkk xoolal borom xam-xam la xoolal ba nga xam lu wér ci moom yenn saa yi sax ñu nax nit ci photo kenn day jël benn photo borom xam-xam bu mag daal di koy def ci page am daal ci bindu trois ji nga defa ne kooku la fekk du moom soo ko woowee téléphone mu ne la man aw ma page sax Facebook nga xam ne kon du kii waaye dafa am ñu koy def pour lan pour tasaare mbon ne diw moo wax lii wala diw moo la wax lii fekk ñooñu yàlla xam na ne xamuñu sax nu ñuy utiliser Facebook kon balaa ñuy tas benn xabaar wala benn qissa bu ñu dégg benn nettali wala benn information bu ñu jot barki démb xam ngeen ne Turquie dañ doon coup d'état président bi ñaari minute bi coup d'état bi biñ ne am na commencé nañoo tas ci Facebook beeg ci rajo yi ne président bi ñenn ñu ne rey nañ ko ñenn ñu ne non reyuñu ko mais dafa daw moo ngi ambassade Turquie Allemagne bu nekk Turc mu ngi laaj waa Allemagne pour ñu nëbb ko fekk boobu moom mu ngi pale ba toog parce que coup d'état bi dafa échec gis nga ay journaliste ay dëkk commencé cee wax fekk benn xabaar amu ci fi mu nekk ñi ci waxoon ñëpp dañoo am gàcce parce que la ñu waxoon lépp ay fen la lu tax parce que xabaar yi ñu jot moo baaxul surtout nag jamono bi ñu toll nga xam ne jamono nax jullit yi la ci ay xabaar waaw jullit yu bare bari ci ay xabaar lañ leen naxee maa ko lire ci Facebook bi maa ko lire ci benn journal maa ko déglu ci rajo bi loolu rek loolu du dalil xabaar boo dégg leerlu ko wa in jaakum faasiqin bi naba'in lu yàlla wax fa tabayyanu leerlu leen julli ji tey bu ñu doon demee alxuraan lu bëri du la mais waaye maa allah maa al asab alxuraan fee lañ ko teg te yàlla def ñu ne xabaar bu jot xabaar bu ñëw lu nu mën a dégg balaa ñuy gëm yàlla nee na nañu leerlu mbokk jullit yi nañuy vérifier bu baax bépp waxtaan bépp nettali bépp xabaar balaa ñu koy tasaare balaa ñu koy bind balaa ñu koy dëggal nañ ko vérifier juróom-ñetteel ihrasu ala naf'i nnaas bi rasailikum wa mansuratikum nañu nekk ñoo xam ne ñun dañuy jëriñ jullit yi jumtukaay la boo xam ne mun nañ ci jàngale diine lu dul jeex waneel yonent bi nu mu doon jullee sifatu salaatu nabi tàmbale ko ca njàpp ma tàmbale ko ca liqaam ba tàmbale ko ca kabbaru armal ba ci asalaamu aleykum ba yonent bi di sëlmal jàngaleel loolu jàngaleel sifatul wudu nabi yonent bi bu daan jàpp jàngaleel hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata hadis la bis boo xëyee bindal benn hadis soo mu nee traduire nga traduire ko en français soo ko mu nee firi nga firi ko ñeneen ñi ñëw jëriñoo ko ab julit noonu lay def jëlal benn aaya ah nga génn li ci nekk ci ay njëriñ ay atte ab julit noonu lay def wala nga dugal benn vidéo borom xam-xam buy jàngale diine wala nga dugal benn waxtaan ab jullit noonu lay def nañu fexe ñu tasaare ci ak mbaax ñun loo xam ne day jëriñ jullit yi ci message yu ñu fay yóbbu ak bépp photo wala bépp vidéo wala lépp lu ñu fay def nañu fexe jullit bu ko jot dana ci jëriñu loolu moom mooy taxawaayu ab jullit jullit day tasaare lu baax ndax lii baax lii ngay def ëllëg yowmal qiyam moom moo lay seedeel moo lay indil tiyaaba ëllëg yowmal qiyam pour nga mën a dugg aljanna mbokk jullit yi nañu xër bu baax a baax ci jëriñ nit ñi ci facebook bu ñu mel ni ñeneen ñi nga xam ne mbon moo leen fa yóbbu koo xam ne sa yéene mooy mbon mbon ngay def mbon ngay tasaare ab jullit nag na am yéene tasaare lu baax na am yéene def ko jumtukaay pour liggéeyal diineem yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaam waxoon na balligu anni walaw aaya jottali leen ma lu daw donte ne benn aaya ngeen mott ngeen mokkal jottali leen ko juróom ñeenteel li takun kulli kalima tursilunaha shahadatun lakum la shahadatun alaykum fexeel ba bépp baat baat boo fay bind baat boobu ëllëg yowmal qiyaam na la seedeel waaye bu mu la seede ñaari baat yu bokkul la baat bi na la seede waaye bu mu la seede baat bi na la seede na yow ku baax nga woon ci yow la bàyyeekoo ci sa xalima la bàyyeekoo ci sa loxo la bàyyeekoo ci sa làmmiñ la bàyyeekoo ci sa xel la bàyyeekoo waaye bu mu ne yàlla kii lu bon rek la fi doon def te xam ngeen ni yawmal qiyaam yàlla dina tëj gémmiñ yi cër yi di wax alquran moo nu ko nettali al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhad arjuluhum doomu aadama dina ne cëpp yowmal qiyaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu koy nettali mu ne yàlla ne doomu aadama xoolal sa bàkkaar yu bëri yi mu ngi nii toll ne ay montagne suñ ko yenoon montagne yi sax duñu dox ak moom doomu aadama ci dëgër fitam ak ñeme mu xool xam ne moo ko def mu bugg génn waay mu ne yàlla lii defuma ci dara borom bi tabaraka wa taala tudd màggaayam ne ko ah mu ne lii yàlla man defuma ko yàlla mu ne ko ñu indi ay seede mu ne d'accord nañu indi ay seede nañu indi ay seede yàlla bëgg a mu ne déet kenn duma seede ku dul sama bopp ndax yow yaay yaa yàlla yaay borom jaam ñi ñii dañ laa ragal boo waxee nañu seede yow la ñuy faral kon man d'accorduma ñii seede sama bopp man mi maay seede sama bopp walla yàlla ne ko d'accord naa doomu aadama xaarul woon foofu ndeysaan yàlla ne gémmiñam waxal yàlla daal di tëj gémmiñ gi ñu ne bët ba nee ne ana lil xaraami nazartu li araamoon maa ko doon xool yàlla ne ko dégg nga nopp mu ne ana lil xaraami samitu li araamoon maa ko doon dégg ñu ne loxo mu ne alanil xaraami lamastu li araamoon maa ko doon laal ñu ne tànk mu ne analil xaraami masaytu fi araamoon man mii maa fa doon dem ñu ne gémmiñ gi mu ne analil xaraami akaltu li araamoon maa ko doon lekk yàlla ne kon doy na ñu woo malaaka yi nekk ci ndeyjooram ak càmmoñam malaaka bi nekk ndeyjoor ne ana katabtu maa doon maa ko doon bind lépp lu mu def ci lu bon maa ko doon bind ñu woo walaaka bi nekk càmmoñ mu ne ana shahadtu maa ko doon seede dëgg la kii lu bon rek la doon def waaw maa ko seede kii ne ana katabtu maa ko bind kii ne ana shahadtu maa ko doon seede yàlla mu ne ana araftu wa satartu xamoon naa ko ma nëbb ko xamoon naa ko de xamoon naa kii bandi la waaye dama ko nëbbaloon ana araftu wa satartu waaye tey fii ci àllaaxira laqad istadda xadabi ala man qalla hayaahu alayya sama mer dina nekk ci képp koo xam ne bi nga nekkee ci àdduna man yàlla nga ñeme woon ragal nit ñi waaw loolu mooy lan yastaxfuuna min annaas wala yastaxfuuna min allah wa huwa maahum dañuy nëbbatu nit ñi génn ci seen kanam mbaax di leen wan mbaax bu ñu weeteeg yàlla ne ñoo tey lu ñu neex def moo tax yàlla mu ne tey sama mer dina nekk ci képp ko xam ne danga maa ñàkke woon kersa man yàlla ragal nit ñi rus nit ñi man yàlla nga ñeme ma abdullah ibnu abbas nee na foofu la yàlla naan malaaka yi xuzu jàppaleen ma waa ji mu ne bu yàlla ne malaaka yi bu yàlla waxee malaaka yi jàpp leen ko mu ne juróom ñaar fukki junni malaaka ñooy njëkkante waa ji xool leen baat bi jamu la de xuzu waxul xuzhu su waxoon jàpp ko mu nekk kenn xuzhu xuzu jàppal leen ma ko soixante-dix mille malaaka ñooy wàcc ci yow benn malaaka bi rek xeju ci waaye dañoo dégg ndigalum yàlla ba yàlla di wax malaaka yi def leen ko nangam def leen ko nangam ba malaaka yi sax xam nañ ne loolu dafa métti dañu ne yàlla lii li ko waral mu ne innahu kaana laa yuminu billahi alazim kii gëmul woon yàlla mu màgg mi kon ixwat al iman juróom-ñeenteel mooy nanu fexe ba bépp baat bépp moo bépp araf bépp photo bépp nettali bu nuy fay génne te nekk boo xam ne daf ñuy seedeel mbaax waaye du seede suñu kaw fukkeel mooy kuunu mafatixan lil xayr magaaliq lil shar nañu nekk bunt boo xam ne dañuy ubbeeku waaye pour mbaax nañu ubbi ay bunt waaye mbaax ku dugg ci sunu page rek na fa jële mbaax na fa gis mbaax na fa jàng mbaax nañu nekk ay bunt yoo xam ne dañoo tëju ci lépp lu bon kenn bu mu ubbi suñu bunt gis lu bon mbokki jullit yi yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nabudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala dañu tàmm bu nu tolloo ci waxtu wii ci bis yi nekk ci vacances dañu tàmm di génn di tukki di ànd ak mbooloo di ànd ak ñoom gox bu ñuy wax Casamance bi isnillahi tabaraka wa taala ren tamit danañ delluwaat lu tolloog léegi ñaar fukki at wala lu ko ëpp yàlla nuy dimbali at bu nekk dañu ànd ak ay mbooloo borom xam-xam bàyyi ko Dakar jublu sud Casamance bi di wër gox yi benn par benn fii am fii ñu am fi ñetti fan yenn saa yi fii ñeenti fan yenn saa yi fii juróomi fan fépp fu ñu dem xaw ne xaw na tar jullit ñi xaw nañ faa réere diine wala nasaraan yi am na luñ fay def ñu ëppal foofu fan yi fu ñu dem xam ne ñii xaw nañoo tane ñu def fa ñaari fan fu ñu dem xaw ne xam naa may jafe-jafe fii ñu def fi ay juróomi fan fii ñu def fi ay ñeenti fan waaye léeg-léeg ñu dem ci ay barab fekk ay jullit yoo xam ne ni ñu leen réere la dafa ëpp surtout nag waxtu wi nga xam ne chia yi côté yooyu la ñu gën a màbb jëm lu tax ndax dañuy yóbbaale ay ndimbal dañuy yóbbaale ay ndimbal ci jullit yi ñëw di leen jox ay tracteur ci mbay di leen defal ay bitik du ma fàtt mukk demoon nañ dëkk boo xam ne waa dëkk ba bañ leen dàqee ñu daw ña des ca dëkk ba nekk ay nasaraan seeni mbaam xuux ca jàkka ja lañ ko denc mbaam xuux yee ca jàkka ja lañ ko denc bi xeex bi jeexee ba ñu ne jullit yi nañu ñëwaat ñu ñëw fekk mbaam xuux yi la ñuy def jàkka ja moom mooy daral ba daralu mbaam xuux yi keroog jàkka ji dañ ñëpp nit ñi dañoo summeeku di ko raxas waaye boobu sax jàmm la am na góor goo xam ne dëkk ba mu nekkoon moom kenn mooy jullit bi mu faato comme tabaxoon na benn jàkka ju ndaw bi mu faatoo nasaraan yi ñëw tubbiloo doom ji ñu def jàkka ji église kon mbiri doy waar la kon mbooloo moomu mbokk yi ñu ngi leen di tàggu insha allah talaata dañuy dem dinañ dem jululu danañ dem dëkk bu tudd kataba danañ dem dëkk bu tudd gudomb danañ dem Sédhiou danañ mujjee ji Ziguinchor incha allah comme niñ koy defee année bu nekk waaye mbooloo moomu ñoo ma waxoon ne su ma ñëwee suñu xutbaa ba pare ñu tàllal leen loxo pour ngeen jàppale leen lu ñu yóbbuwaale ci yoon wi ak la ñuy yóbbul mbokk yi ñu fekk parce que voyage bi yëpp ñoom ñooy dimbali seen bopp lu dul sàkku ci yàlla tiyaaba amul kenn koo xamante ne yow yaa leen dimbali moo tax ñu ne ma woon vendredi bi dañ tasaaroo ci jumaa yi am na ci jumaa yoo xamante ne yu ñu cité mbokk yi dem fa laajal leen mbokk yi ay ndimbal incha allah pour ngeen jàppale leen bu ñu jullee ba pare lu leen waaye mën a dimbalee incha allah ñu dajale ko pour mardi bu ñuy dem incha allah ñu yóbbaale ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله